billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim auzu billahi min asheytani rajim eh, bismillahi rahmani rahim maa ngi julli di ñaan yàlla suñu borom di julli ci Seydina Mohamed paix et salut sur lui sallallahu alayhi wa sallam di wax ne boo demee ci alxuraan ci xaaju suuf am na benn saar boo xam ne dañ koo tënk mhm. te foofu suñu borom mu ngi waxal ne nit ku waxul deful nga wax loo ko defloo ko bu kerogee àllaaxira yaay tàddal sa bopp foofu ndax moom yoonam nekku ci ma wax ji boo demee ba xaaju suufu ci kaamin bi am na benn béyat boo xam ne dañ koo bind yàlla nee na ku waxul deful jëful nga wax loo ko defloo ko jëfloo ko te moom loolu dara nekku ci keroog alaaxira yaay tàddal sa bopp foofu ndax boo ko baalul du jàll xam ngeen ne man Idrissa Seck ndaamal Kajoor benn baat bi su ma waxee ren déwén man la lay waxati li ma ki bëgg laa bëgg nga ni yi ñun wër nañu Sénégal ba mu daj laaj leen seen baat ngeen jël seen baat jox ko Macky waaw waaw man lan laay waxateeg Macky mënuma koo doon aw ma carte APR. déedéet lan laa war a wax ak Macky Sall loo xam ne man dama ciy teg ay diin. wallaay wallaay waxati dëgg. waaye nag am na ñoo xam ne ay yàqkat lañu. fu ñu dugg rek laal ko mu yàqu. yan ci yàlla waaye nag yàlla mu ngi wax ci alxuraan ne boo demit ba ci benn bayit wax nañ fa benn wax bu am solo te wax boobu buñ ko dëppaatee indi ko ci yi Israël ca Palestine. Mhm. dafa am benn saaba buñ naan Aboubacar Bakarin. Aboubacar Bakirin Aboubacar Bakirin dafa mus a ñëw fekk sang yi toog mu ne leen dama bëgg ñu waxtaanee mhm. dafa am waajoo xam ne dafa génn dem ca marché ba fa ñuy jaayee gëléem ya mhm. ne waa man dama ñëw pour wax leen ne am na koo xam ne mu ngi doon doon lu yonent bi te du yonent bi bokkul ak moom ndakate waa ji dafa bëggoon indi scandale oh, dañ koo yónni woon pour xaajale jullit yi histoire boobu nag boo ko dëppee indi ko ci histoire tey bi ki génn barki démb ci télé bi mhm. ne Idrissa Seck ma ngay wax ak Macky Sall mhm. boo jëlee jamonoy Israël Palestine waaja waxoon loolu ca kanamu abu Aboubacarin mhm. ñu waxoon ko sultaanin siidi la tuddoon la ilaha illallah ndaa man siidi boobu sultaan yàlla da ko weer nga ndax dafa wax wax ji ba pare ña nga xam ne ñoo xam yonanti bi sallallahu xam jikko jullit yi dañoo jël ay xeer. fekk garab bu ëmboon ay yamb. Mhm. ñu toj garab ga. Oh, yamba ji dàq ji ki nga xam ne mooy sultaan Sidi munu si Sidi. naa fekk bu mag la. seytaana la moo taxit moom ci boppam. tax na keroog suñu borom wàcce benn aaya di araftu. Oh. ne ku nit ki waxul deful laalul egsiwul nga tuumloo ko defloo ko waxloo ko laalal ko egsil ko. bu keroogee alaaxira man yàlla suñu borom dama naan tekk bàyyi leen fa boo ko baalul du dugg oh, te boo ko baalee ba pare man danaa wax ak moom ne ko lu tax nga wax lii laa kon nag ki wax wax ji moo ma wax loo waaye man nee naa muut ndax yéen a ma muut loo lay bi yokk ak li fi am yëpp hmm. duma ci génn di ci wax ndax bañ leen waree wax pour ngeen wotal ñu da ngeen ñoo ko bàyyi fi ànd ak Macky laa lan laay waxaati mën a defati élection amul assemblée xew mag maki wooteewul lan laay waxaati tekk def ni ko xale taasukat ba waxoon coon wayu waali wayu waaw yuusu tëggul kon ko le yàq ñëwal kaay kaay waay tëggul kër ñëwal fii njëkkal kaay birsi ma ne muut muut ñëwal ñëwal